cet épisode tragique par des tueries en masse, mais par des crimes en cascade. Par la suite, je voulais aussi m'associer au message de Cheikh Tidjan au message de compassion, euh, pour manifester notre désarroi à la suite des dégâts matériels, des dégâts qui sont énormes à raison d'un gouvernement irresponsable qui décide de maintenir ce pays en tension. Mais en raison aussi des nombreuses blessures suite à des cas de torture manifestes au sein des commissariats de police et des brigades de la gendarmerie, confortés, aidés et renforcés et assistés par des milices et des nervis. Euh, loolu nag bëggoon naa accès sama intervention ci ñaari wàll première wàll bi mooy li jëm ci justice muy dossier bi nga xam ne lu ëpp ñaari at parce que mars 2021 la tàmbale woon tey ñu ngi ci juin 2023 moo tenir en haleine de débat public mais moo tere Sénégal ñëpp kenn mënu am ci am bu weesoo loolu nag dinaa revenir ci ay éléments de réponse par rapport ak plainte bi nga xam ne sénégalais yi ñoo décidé ay autorités yoo xam ne dafa am nu ñu comporté woo ñu dénk leen doole ñu jël doole boobu di ñu ci rey di ñu ci torturer di ñu ci mbugal di ñu ci tëj ñu décider saisir la Cour pénale internationale qui a une compétence universelle. En ce qui concerne le dossier judiciaire nga xam ne moo frappé Sénégal depuis mars 2021 démb dañu gis koo xam ne moo censé woon garder les sceaux qui sont les symboles de la République le ministre de la Justice. tàmm nañu ci moom mu nekk dans avec une mauvaise foi boo xam ne elle est manifeste elle est expresse jéem a manipuler l'opinion nationale et internationale mais boobu amoon na limite parce que da doon jël loi bi di ko interpréter à sa guise et selon la commande du chef mais cette fois si dafa atteindre beneen niveau boo xamante ne yegg na ci paroxysme bi maanaam ci njomboxtal bi mooy lan premièrement dangay dugg ci loo xam ne nekkatul sa prérogative parce que ministre de la justice bi ñu la nommé dafa am décret boo xam ne mars 2023 la boo xam ni moo organisé ministère de la justice wax la yow lan mooy say attribution ministre de la justice nekkul mooy wax magistrat yi li ñu war a àtte ak li ñu warta àtte nekkul moom mooy commenter une décision de justice même su fekkee une décision définitive la parce que su boobaa dafay immixé wu en tant que kuy représenter la chancellerie bokk ci exécutif bi di dugg ci pouvoir judiciaire mais li pire mooy décision boo xam ne elle n'est pas encore définitive parce qu'il y des appels la partie civile a fait appel Ndeye Khady Ndiaye l'une des co-accusés a fait appel donc c'est une décision pendante yow nga ne dangay ngay commenter décision di wax fan lañ ko teg donc loolu day influencer la juridiction d'appel li pire nag mooy nee na dafay dugg ci esprit wu juge bi maanaam moom mooy wax juge boo xam ne àtte na ba pare mais ba léegi décision bi disponible agul te décision nag ñetti wàll la qualité bi nga xam ne greffier bi moo koy def wax ñan ñoo àtte mbir mi composition tribunal bi nan la demee identité wu parti yi ak seeni avocat ak kañ nañ saisir juge bi ak ak fan lañ jaar su paree juge bi daal di def motif maanaam fan la teg décision am après mu indi dispositif li génn keroog dispositif la c'est un ne lii la ñu àtte mais juge bi tant que génneegul décision bi cour d'appel mënagul statuer moo tax même kuy def appel bu demoon def ko ci cour d'appel greffier bu cour d'appel dafay demander greffier bu nekk ci tribunal de grande instance ne ko indil ma décision bi avocat yi suñuy plaider en appel procureur buy def réquisitoire en appel moom lépp ci décision boobu nañ koy basé donc ki nga xam ne nag moom moo rendre décision waxagul fan la ko teg ministre bi génn ne moom mooy wax sénégalais yi décision bi fan lañ ko teg ma koy laaj nag est-ce que loolu tekkiwul ne décision bi décision wam la et bi dafa ñëw liir ko su fekkee loolu la na am courage wax ko yi bi ci tegu mooy deuxième niveau bi nag mooy wax loolu wàllum waxut mais inventé ay décision de justice te dinaa ci revenir benn par benn dañu ko dégg mu ni ci ordonnance de renvoi bi nga xam ne moom la doyen des juges jël pour renvoyer mbir mi devant la chambre criminelle muy ordonnance boo xam ne elle est inédite dans les annales judiciaires mu ne ci ordonnance bi dañu renvoyer Ousmane Sonko le président Ousmane Sonko pour pour corruption de la jeunesse mu ne loolu ci liñ ko renvoyer woon la bokk ne daal di ne dem leen ngeen liir waaw yéen ñii nag comme jàng ngeen am ngeen xel mën ngeen liir gumba woo leen nañu ànd ñu liirandoor dispositif bu ordonnance bi vu l'article 175 du code de procédure pénale décernons ordonnance de prise de corps contre Ousmane Sonko et Ndeye Khady Ndiaye ordonnons leur mise en accusation et leur renvoi devant le tribunal de grande instance de Dakar statuant en matière criminelle pour y être jugés conformément à la loi pour des chefs de viol et menaces de mort contre le premier, incitation à la débauche, diffusion d'images contraires au bonnes mœurs et complicité de viol contre la deuxième, fait, fait en notre cabinet à Dakar le 17 janvier 2023. fii da ngeen fay dégg corruption de la jeunesse kon nag de tailleur constitutionnel il est désormais passé à faussaire pénale de tailleur constitutionnel il est devenu falsificateur d'une décision de justice. Parce que ça, c'est une décision de justice. Et c'est très grave. ñu dégaat ko mu nii juge bi dafa disqualifié setalul Ousmane Sonko ci viol dafa disqualifié pour corruption de la jeunesse d'abord man dinaa revenir ci disqualification boobu parce que ñun jàpp nañ ne c'est une hérésie ni mu nekkee hérésie mooy disqualification mooy dañu am lu ñu lay toppee benn infraction bi la mais dafa am ay circonstances aggravantes yoo ko defee maanaam dañu lay toppee sàcc mais sàcc bi danga nga koo ànd ak keneen muy vol en réunion wala sàcc bi danga koo def ci guddi parce que circonstance aggravante la wala danga ko def avec escalade danga ngaa tëb mur wala da nga ko def avec effraction wala da nga utiliser moyen de locomotion da nga utiliser oto wala moto c'est des circonstances aggravantes bu ñu demee ba ci biir gis ne nekkete bi ngay sàcc tëboo mur wala bi ngay sàcc naam timis 19 heures moo jot mais timis jotagul guddeegul ñu daal di disqui disqualifié en vol simple loolu mooy disqualification mais toppee nit viol muy yàqataan ne dafa forcé nit tourner fële ne la da nga def corruption à la jeunesse da ngaa ger ay nit pour yàq leen ça n'a rien à voir kon c'est pas la même infraction mais moom nee na disqualification ni mu ko firee moom l'agrégé en droit mooy juge bi nee na séq nañu ñoom ñaar waaye nag séq boobu moom tuddeewu ko viol li mu ko tuddee mooy da nga koo nax te fekk xale la woon loolu nag ñuy wax sénégalais yi ne du dëgg c'est un pur mensonge parce que loolu la tudd bu ngeen demee tribunal ngeen def archive yi décision de justice yi ñu génnee yëpp yoo xam ne dafa am disqualification c'est la même motivation dañu naan attendu que les faits par exemple de vol en réunion initialement reproché à X s'analyse plutôt en vol simple s'analyse plutôt ça veut tout simplement dire que li ñu la doon toppee fireetul lii lële la firi bu ñu ko gisee lii la ñu wan te loolu juge bi nag mooy wane après en quoi corruption de la jeunesse am na li tax signifié wul conjonction sexuelle maanaam ñaan ñi dañoo séq parce que dañuy leeral pour sénégalais yi dégg mooy dañuy dem liiraat parce que tey dañu bëgg lépp leer article 324 bu code pénal alinéa 2 sera puni aux peines prévues au présent article quiconque aura attenté aux mœurs en excitant favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe au en dessous de l'âge de 21 ans ça veut dire que attente aux mœurs mooy délit mais soo defee atteinte aux mœurs da nga ko def soit da ngaa favoriser wala nga exciter wala nga faciliter débauche muy benn wala nga corrompre jeunesse bi donc le délit corruption de la jeunesse mënul nekk infraction autonome moo tax décision de justice bi jàppee leen ko benn torsion boo xam ne nit ñi ci poubelle nañ koy sànni parce que bu eh, infraction moyen la pour nga def benn infraction élément constitutif la kon nag mun nga favoriser wala nga exciter ay jeunes pour ñu nekk ci débauche tey bu la neexee nga tabax sa kër dugal fa ay xale yu góor ak yu jigéen ñiy caaxaan tu as favorisé tu a excité tu as facilité la débauche ils ont moins de 21 ans mais est-ce que yow da ngaa siq ak ñoom relation bu dee góor nga ay jigéen ya fa nekk bu dee jigéen nga ay góor ya fa nekk kon bu taxawee ne bu ñu nee corruption de la jeunesse mooy conjonction sexuelle encore il a déformé la loi mais il a falsifié une décision de justice de garder les sceaux qui sont les symboles de la République parce que le département de la justice, c'est un département de souveraineté. C'est extrêmement important. beneen bi mooy mu ñëw di wax ci continence encore une fois waxaat loo xam ne képp ku koo xam ne jàng nga xam li yoon di doxee wala ngay sénégalais boo xam ne am nga xel di xalaat da nga war a rus ndax daf nii comme contumace la mun nañu dem jël ko à tout moment mais que président Ousmane Sonko bu ñu demee pour ñu jëli ko il faut ñu notifier décision de justice bi il faut ñu yëgal ko ko dinaa ñëw ci lan moo tax mu bëgg yéexal boobu am mais balaa ma ciy ñëw damay wax ne loolu amut c'est simple notification boobu amut bu ngeen demee lire article 345 bu code pénal daf ne bu ñu la condamné pour contumace décision bi dañu koy affiché dañ koy affiché au dernier domicile du conti max mooy ki nga xam ne moom nañu woo ci procès criminel te ñëwut au dernier domicile foofu nañ koy affiché waaw koo xam ne conti conti max la dafa daw génn par exemple te loolu mooy contumace naa ci ñëw mais loolu yegg seeguma ci kooku nan ngay demee di xaar pour notifier ko notifier notification ak signification du benn signification ak citation du benn loolu ay termes la yoo xam ne ñi nekk ci pratique pénale xam nañu ko même pratique civile léegi ñu la dañ lay notifié lu ñu lay notifié te yow nekkoo fi nga daw tant que notifié wuñu la procureur di la jàpp du la jàpp kon de Sénégal war nañoo tiit bu dee trafiquant de drogue bu ñuy war a àtte mu daw wala koo xam dafa rey nit bu dawee tant que notifié wuñ ko décision bi kenn du ko dem jàppi loolu c'est grave c'est indigne d'un la justice kon nag loolu ñu siy jaaree yéen sénégalais ngeen xam ne le droit pénal ce n'est pas de la littérature constitutionnelle non c'est pas de la littérature constitutionnelle La pratique de procédure pénal ce n'est pas la théorie à l'amphi, à l'université. Non, non, c'est différent. li ngay wax da nga koy dundu jëfee ko mais nga teg ko ci bonne fois pour mën a wax loo xam ne sénégalais bu ñu ko déggee dinañ xam donc yooyu mooy ñetti fausse nouvelle donc c'est une diffusion de fausse nouvelle et elle est punie par l'article 255 du code pénal li mu def moom mooy wasaare ay xibaar yoo xam ne wérul moom la def buggoon naa nag su ma paree ci moom ñëw ci contumace nan nañuy mën a waxee ne Sénégal koo xam ne xam nga fi mu dëkk xam nga domicile am boo ko bëggee jëli tey tey suba nga jëli ko 19 heures bu la neexee du fanaan këram bu fekkee sénégalais dinañ la ci bàyyi. barricade këram yow yaa koy garder léegi donc sel Cité góor gi mooy zone bi ëpp sécurité ci Sénégal nga ne yow da nga ko condamné par contumace. article 345 boobu noonu mooy wax au dernier domicile du contumax mooy contimence mooy koo xam ni c'est un fugitif maanaam dafa daw mais koo xam fi mu nekk nan nga koy condamné par contumace loolu nag day interroger sénégalais yi ñu xam ban justice nañu am beneen bi aussi mooy dama ko fàtte woon mooy mise la justice foofu laa bëggoon a sax terminer ci côté ci disponibilité décision bi parce que daf ni ñaar a am par rapport à l'exécution de la peine bis buñ ko xasee ba notifier décision bi am na moom soit mu ñëw construire wu prisonnier su boobaa la peine sera anéantie wala procureur jàpp ko boobaa la peine sera anéantie waaw loolu mooy lan mooy yow li nga àtte amul njëriñ loolu mooy li nga àtte amul njëriñ soit da nga koy dem jàpp la peine est anéantie jàppi woo procureur euh, moom moom mu dem constituer wu prisonnier la peine sera anéantie loolu moo tax nag muy préparer l'opinion à une autre manipulation qu'est-ce qu'il dit il di que juge bi kenn du ko teg pression mooy jël temps moom bind décision de justice parce que moom moom moom boppam loolu du dëgg article 473 alinéa 2 nee na décision de justice bu ñu ko rendre dans les 15 jours juge bi ak greffier bi dañu ko war a signer mu disponible au greffe kañ lañ rendoon décision bi du 1er juin tey la kañ du 16 juin kon décision bi tey waroon na disponible au greffe loolu la loi bi wax de mais comme yow nag da ngaa soxor da ngaa créé sa dossier boo xam ne président Ousmane Sonko nee la dossier bi sa dossier la <laughs> moo tax bi ñu ko créé gis nga lim la jural moo tax mu ne la dossier bi sa dossier la moo tax jaral na la say consulat fépp ci àdduna bi ñu tëj suñu consulat sa dossier la jaral na la chaque jour nga génn di justifié wu auprès des ambassades tey nga war a dem commission des droits de l'homme bu bu bu bu commission des affaires étrangères bu union européenne def ay conférence de presse yu dul jeex parce que dossier bi sa dossier la yaa ci dugg xamuloo noo ciy génnee moo tax nag muy préparer l'opinion à toog heure bu leen neex pour def lu leen neex loolu nag sénégalais yi ñu leen ciy xaar bu loolu weesoo nag kon ñoom ils sont tiraillés entre de feux entre deux feux le feu judiciaire et le feu politique le feu judiciaire mooy boo nee da ngaa arrêté Ousmane Sonko la décision est anéantie en toutes ses dispositions li nga defoon yow ndax saay na mais le feu politique mooy yow demal nga jéem a arrêté Ousmane Sonko bi nga ko jéemee condamné xam nga lu la ci fekk boo ko arrêté wee xam nga lu la ciy fekkaat bu loolu weesoo nag ñu ñëw ci plainte bi nga xam ne moom lañu ñu bëgg a def devant la cour pénale internationale ñu gisaat encore une fois un gouvernement boo xam ne wane na ni liggéeyul pour sénégalais yi il roule pour d'autres intérêts ci naka dem leen États-Unis ngeen xam ay citoyens américains ngeen leen la ñu def plainte devant la cour pénale internationale contre Joe Biden ngeen xool ba xam le lendemain États-Unis seen gouvernement dinañ def conférence de presse pour naan dañuy tontu pourquoi répondre parce qu'en réalité defuloo ci lan ngay répondre